tey ci loi laay dox ci loi Babacar tey li waroon a nekk meram mooy alaaji élection yi jeex. Mhm. ma ne sénégalais yi bàyyi bàyyi naxee mbaay utiliser naa leen ba falu buur dem naa sama yoon. Mhm. mu ne kii li mu def. bàyyi xam nga li ma la. Mhm. mais Babacar Diagne bu dee journaliste la man pour man lii tiitër la war a nekk ci moom. dëgg loolu dëgg. waaye toog naan day violer ay article sans nangam. orientation dugg na fi génn bi hmm? te waa ji mosul changé ba mu ko xamee ak fi seen RFM ba Zik FM lii la mu samel kër Diagne fii lu ñu ñëw ci élection locale yi mu bind communiqué jox ko rédaction yi alaaji hmm. sama kër gii laay njëkkee hmm. Mame Mbaye Ndiaye mi ngi woon ci liste yi toog na fi ba élection yi jàll muy campagne bokk gëm sa bopp ba élection yi jeex Mame Mbaye kenn joxu ko leetar moo ñooñu ba amee ay dara. Mhm. ñoo moo leen intéressé. Mhm. Seyna Omar Ba Walfadjri. Mhm. présentateur la. moo leen di présenté treize heures. ñu nekk doon Oxygène Diso FM mi ngi Walfadjri. te de liste la woon majoritaire Kër Massar. dégg nga loolu. ba campagne bi jeex. man nag nga bindal ma lettre ne Ahmed na jóge ci micro yi bu mu fa toog parce que xëj na moom li muy def yow arrangé wu la. métier bii nag duñ ko bàyyi politique du métier. wallaahi mm, mm. dégg nga loolu. Mm. li doon bon mooy Ahmed Fallou ne bàyyi naa sama métier parce que la may fayee ko fee wala avantage ya fa ne moo ëpp li may am fii daw naa toppi teraanga ja. Mm-hmm. métier bi duñ ko baax. benn ñaar ligne éditoriale bi du changé. dégg nga loolu du ci yàq dara. ah oui ñun tollootuñ nag. Mm-hmm. fu ñuy wutee ay ay teraanga ci métier bi. waaye passion moo ñu fi wax sa métier la sama métier la Babacar Diagne na dimbali nit ñi bañ a nekk un comploteur kilifa la dañ naan wax di ko mbalak nii chaque jour Babacar Diagne lii Babacar Diagne lee xam nga li ma la mm-hmm. mais mbir mi nag day bëgg a sérieux mm-hmm. nga singili benn doomu aadama nan nangaang ma wàcc bam ne nañ ko xañ micro yi mm-hmm. dama ne sant yàlla ñaari weer dégg nga. Mhm. mu ngi bàyyi ay journaliste ci rédaction yi kenn mise en leen kenn waxu leen dara. Mhm. ba ci fii ci biir kër gi laa la wax. ñi ma bindal lettre ne ma demal toog ca booba ay journaliste ngi ci kër gi bokk ci liste yi. Mhm. te bindaluñ leen lettre. xam nga li ma wax. ba feneen amee nag ba tey kenn sonnatul. comprendre li ma la wax Babacar Diagne na réglé. bu dee lu neex Macky motax tax kër xërxëri ni na dem tok mhm. parce que Macky Sall mënul fexé muus ba amène ay dara changer ligne éditoriale am mënul ne am na journaliste yi opté jàppale Macky. Mhm. man jàppalewu ma Macky nama ma Macky won woon. na ma Macky gisee woon. Mhm. ba soppoon ma ba mu nekkee ca opposition Ahmed bobu mo fi nekk ba tay te du changer une virgule. te Macky moo ma daan xelal naan ma soit toujours du côté du peuple. Mm-hmm. bis boo demee ba teraanga jaral la nga far ci nguur mooy dee nga. dee nga moom Macky ci boppam. ñi ko gën a xam ci réew mi man dama cee bokk man dama daan militer UJTL boobu maa ngi lycée Limamoulaye ak CM Canada ci parti yi la ñu xamante Macky xam na ma xam nga li ma la. Mm-hmm. ñu nekk ñu ñooñu nga xam ni da ngay yooyoo safoo yàpp safoo jën kenn mësul am ci man dut ne Ahmed mii. est-ce que du deal ak Alioune Sall wala Ahmed Alioune Sall lay liggéeyal su ma ànd ak yow ñëpp dañuy xam ne dama ànd ak yow su ma àndul ak yow ñëpp xam ne ànduñook ak yow. ki nag fukki weer ak juróom-ñett moo ko fi dese troisième mandat réew mi duñ ko d'accord bu dee loolu lay ba ñu dégg na pare takk ay bagaasam dem dégg nga loolu. Mm-hmm. Babacar Diagne ñaata journaliste ñoom ñoo fi nekk Mantoulaye mm-hmm. nekk ci rédaction yi yaa xam mbay man sama xarit la ma jàmbal Diagne bokk na ci ñoo xam ne man dama leen di woo. parce que dama leen nangul seen position. Ah ñoom dañu wane ne ñun Macky la ñu àndal te nëbbatuñ ah, xam nga lan moo bon alaaj sañ nañu ko xam nga lan moo bon alaaj tappale safoo yàpp safoo jël ah. mm-hmm. ma jàmbal nag courage la am ak lu ko nit mën a attaqué mm-hmm. yaa xam dafa courage la am ak lu ko waay mën a ki mm-hmm. Abdoulatif Coulibaly euh, euh, euh, waa ji Fall te mu nekk président Aline Fall Aline Fall Souleymane Jules Diop mais taskatu xabaar lañ wane ne ñun Macky lañ àndal dégg nga seen sañ-sañ ñu nommé leen ay directeurs yaa